gëtal moom datul bokk ci sax 2024 bay day gañe wala ñàkk gañe troisième mandat moom xalaatu ko gars yi sanctionné nañ ko cravaché nañ ko dama ni man businessman laa fii gis nañ lu fi xew gis nañu Cheikh Yérim Seck ko waa LCP man sama intérêt laay liggéey la ma ciy lijjanti lijjanti naa si nga seen ginnaaw kër gi foofu ci côté géej jox nañ ma fa ngandim terrain yor naa samay kayit yor sama lépp man je suis un businessman lijjantiwu ma leneen voilà yoruma seen carte APR uma APR tuma dew ma seen meeting dew ma seen lan non calme nag gis nga sénégalais dañoo mer et puis jamono ji réseaux sociaux la ñuy gagné te Sonko dafa miné réseaux sociaux yi ndaxte jeunes yi ñoo yor réseaux sociaux yi maire di ci kekkantoo di ci foo APR loolu moo daan rey. enquête naa sama xaalis yàgg na. xam nga moo tax par rapport su ngeen yoon nan APR la du APR ma ne ndeysaan comprendre ñu xamuñu si ban business ak ban logique sax laa dugg. parce dama doon nekk gars yi liggéey noppi bàyyi leen kërti kërti amul benn njëriñ kenn si ñoom gorew ci moo tax ba ma dugg waat nii di defar ay journal di wax dama leen ne lii am laa ciy def par la force fëggaat bunt yi gis nga dama ci waxtaan ak benn kër mu ne ma Tange gis nga réew bi soo ci bëggee dox il faut faire avec les grands et parler dans la politique nee na politique tànk yaa ngi toog jàpp sa ñaamur yàlla dañu naan kii mais tànk yaa ngi commencé wax ñoom ñoo lay ragal benn par benn ñoom ñoo lay wool seen bopp te seen moo leen yëkkati yow it sa intérêt keroog xam maa ngi lay naan Bougazelli bi nga ma woo dama foog nga jàppale ma euh, man pare naa lépp loo bëgg mën na loo war laaj mën naa la ko jox. foofu da ngay dem jël li ngay jël su amee benn wax nga waxal ko ko romb fële bàyyi gars yi di saaga wala di expliquer su ci paree moo xam su ci parewul moo xam parce que décidé woo Cheikh Yérim Seck noonu la def ba nekk fi millionnaire de yor fi ay këram yu dul jeex donc nag luñ ko saaga saaga mi ngeeg sutura mi ngeeg terangam yor ay këram yor ay bigasam donc nag doo nekk ci milieu ba génn ci doo ci yor dara man sama bopp laay lijjanti ñoom moom dañoo def échec carrément mooy sooy daanu tuune ngay doon Macky moom lii moom dafa leeral carte bi 2024 da daal ay bagage am def toogi ndànk jàpp njaamuram waaw la des nag ci fii ak 2024 ku ci mën a profité loo ci mën a lekk na lekk ci jeex na tàkk waaw mais ñoom pare nañ ci te commencé gisante gars yere rek te gars yi ñoo lay soxla kaay moo la gis nga ñun bi ñun ñooy soxla pouvoir ñoom seen bopp ñoom ñoo ñuy soxla parce que ñun ay porteurs de voix lañu ñoom ñoo ñuy soxla man mosuma soxla waa APR ñoom ñoo après ñoom ñoo gis sa influence après ñooy ñëw ci yow mosuma leen gëm politique daal ngay xool sa intérêt parce que ñoom ñëpp yam gëmuma ci kenn ci seen mayen yow nga xool sa intérêt xool nooy fajee say soxla tout simplement bañ mel ni Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi xeex ñi saaga sa ndey def la lépp amoo ci oto amoo ci kër amoo ci dara di yor ay bor di ñaan nit ñi ay dix mille francs yooyu moom wax dëgg yàlla mooy loolu man keroog bi ma envoyé message ne ma naa ko lebal dix mille francs euh, waaye falam dafa jeex dama naan ndeysaan politique bay bëgg a dee te mënoo am dix mille francs Fouta Tampi ma ko Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bii nga xamante ni moo doon xeexal Macky Sall di yuuxu kër ci kër saaga ndeyam kër ci non jour mooy jour ma tourné ak moom émission mu génn xam naa si la am problème courant mu yónnee ma message premier jour boobu sax jour boobu laa koy soog a gis jour boobu moo tax ma ne yow nit ki soo koy ñaan sax da ngay ak nit ki waaye maa ngi soog a toog ak yow sur plateau musuma la gis à part dégg la ci télé rajo moo lay wane que ñii ñoo perte ci politique ñii ñoo perte ci APR.